gis ne marché Thiaroye am na lu fi nekk loo xam ne kenn mënu ko expliquer bi ñëwee xool loolu gis ko ñu ne lii du ko bàyyee noonu dañuy dem ba beneen yoon ñu ñëw ànd ak média bi ànd ak bureau national ñu ñëw ñu dem ci marché bi fi problème bi gën a nekk ñu taxaw fa leeral ko d'ailleurs loolu moo tax loolu moo tax Assis jóg tey ànd ak son président Khadim Sylla Anda ak secrétaire général bi vice président bi ànd ak ki nga xamné mom lañ wax mam tierno mu yor lepp lu jëm ci marché yi ñi ñew pour xol fi problème bi nek ñu xol lan lañ ko mëna sutura safara mebetu association bi du dara lu topato commerçant yi fexé ñu jot sen droit fexé lepp lo xamné commerçant war nako mëna am mu am ko fi ci tiaroy ak fépp ci senegal ci bir ñoom ci la ñu ñëwee dégg coowal caaro yi ma leen koy wax bis bu ne ci canal yi ñuy waxante ak problème yi fi am ak inondation bi ak terre bi ak ni maire bi bankee loxoom ci caaro yi ak niñ ko xaajee ñaar ginnaaw bi ko autoroute péage bi xaajee terre bi xaaj ko ñu bàyyi ñoog suñu bopp ci seen liggéey moo tax ñu bàyyi bis bu toll ne tey bu bis bu la ñoom ñëpp bureau national ñëw caaro yi pour xool nu ñuy def ba régler problème bi ci ay waxtaan ci ak ay autorité

dina ñëw ci marché bi. amul benn effort boo xam ne def na ko pour regle problème boobu. waxoon naa la ne la euh, commerçant yi marché Thiaroye ay nit la ñuy waxee dañoo pacifique du ñu ay niti problème kenn ku ci ne lu mbir mii métti métti bu ñu ñëwee laaj la juuti da koy fay. am na ñoo xam dañ koy fay par benn bis ñi dañ koy fay par weer ñi dañuy fay par annuel ak impôt loolu kenn musu ca dégg waa Thiaroye waaye nag situation bii ñu nekkee dafa mel ne dafay daf ñuy bëgg a ëpp président moo waxoon ni. Euh, bi muy joxe ay mesures génn ci Covid bi dafa waxoon ni marché yi marché yi nañuy liggéey juróom benn fan juróom ñaareelu fan ba ñu ko ñu bu rek tax may wax la mairie bi a indi ñu nettoyé marché man benn te ko damaa ñëw ñu ne nañ ba dem te it bët du mais xam lu bopp attan marché bu ñu avant ngeen xam nga ni nga def ba ñëw fii bu doon nettoyé nañ ko du ñu am boobu problème